conseil constitutionnel bi la yoon jël na dogal gu dëppook bëgg-bëgg askanu réewu Sénégal lii di xalaatu Mamadou Mbodj coordonnateur F24. li conseil constitutionnel mooy ñu yeggale li ñu tàmbale woon parce que loolu moom mooy. gànnaaw bu conseil constitutionnel nee na le dogal bi jiitu réew mu Sénégal jëloon ngir abroger décret bi nga xam ne ni moom mooy woo corps électoral bi ak loi bi nga xam ne ni moom mooy indi coppite ci article 31 bu constitution bi ay laaj yu bëre daal di samp. kañ la ñuy amal yi la jongante ci yan anam ak ñan ñoo koy sëkk mu di ay laaj yu bare yi nga xam ne ni conseil constitutionnel jotu cee àddu ñu jàppoon ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024 waa conseil constitutionnel jàpp ni boobule bés mënatuñu ko respecté waaye ñiy woo autorité yu sàlloo organisé yi la jongante ngir ñu mën koo amal nu mu gën a gaawe te loolee ñu war cee xel mandat bi ñu nattal njiitu réew mu Sénégal nga xam ne ni ñaari fan ci weeru avril ci atum 2024 la war a jeex njiitu réew Macky Sall war a tànnaat beneen bés balaa mandaamam bii di jeex gannaaw bu ñu ajee jongante yi boobu ba léegi bu njiitu réew mi tànnee beneen bés dañ koy daal di wëyal ak ñaari fukki candidat yi ko sëkkoon moo ne sax ngir tànn bés bi nga xam ne ni moom la ñu amal jongante yi makisal Sall mën na sëkk tànn ak yeneen acteurs yi bu ñu sukkandikoo ci protocole additionnel bu CEDEAO te nag bu ñu tàmbaliwaatee bii le processus électoral balaa mandat bu Macky Sall di jeex dañ koy daal di wëyal même bu dekkee weesu nañu ñaari fan ci weeru avril ci atum 2024 waaye bu nekkee fii ak àpp boobu jot amaluñu jongante yi conseil constitutionnel mën naa jël dogal jëlee njiitu réew mi ci place am teg fa njiital pencum ndaw réew mi ngir mu organiser waat yeneen élection gën kaa gàtt juróom benn fukki fan gën kaa yàgg juróom-ñeent fukki fan te bu boobaa lépp li nga xam ne ni jotoon nañ ko def ci processus bi dañu koy daal di tàmbaliwaat li ko dalee ci parrainage ba jàpp bés bi nga xam ne ni moom la ñu war a amal jongante falum njiitu réew mi ak nu mu mënta demee réew mi yëpp dogalu njiitu réew mu Sénégal lañuy ñuy déglu ngir xam bu nekkee day dëppoo ak lu ndey charte réew mi wax am déet